jëflante biti réew di Yacine Fall moom ma ngay dut baaraam lu jëm ci wàllu diplomatie de l'environnement El Malick mu di càmbar nag lu jëm ci wàllu secteur infrastructure et des transports terrestres beneenub jëwriñ démb nag itam jot na lenge yi mu di jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gi-yaram Ibrahima Sy moomee nag moom la mu xamle bokk na ci li nga xam ne rek moo jëm ci système de santé bi mu jàpp ne nag faaw ñu daal di koy jooyantiwaat te mooy nag càmbar lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne rek boobee système mu ngi koy jànkonteel bu ko defee nag ñu mën caawut ay saafara ngir askan askan wi mën caa gis seen bopp ci biir yëglekaay bi di 24 heures moom jëwriñ ji nag ne ni gouvernement bi jamono ji nag taxaw na temm ngir indi ay coppite ci système de santé bi nag te loolee nag ci intérêt askan wi rek la koy tënk waaye nag ma tàllal loxo acteurs yi nga xam ne rek ñoo fare ci boobee secteur ngir ñu daal di jàppale gouvernement bu Sénégal ci feuille de route bii nga xam ne rek moom la ñu taxawal ngir mën a saafara nag urgence yi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dundee urgence yooyee nag moo waral ba moom njiitu mii mi Bassirou Diomaye Faye nag daal di amal ab bataaxal nag jagleel ko ñii di agent fonctionnaire yi mu fekk jamono joojee nag moom Ousmane Sonko mi premier ministre bu Sénégal ma ngay teg pression nag ñii di jëwriñ di leen woo ngir ñu daal di jël lépp luy ay matukaay nag ngir a yaatal boobee correspondance yër leen yëglekaay bi di la tribune ma ngay sàkku ci jëwriñ yi nag ñu daal di sàmmonteeg lépp loo xam ne rek ay directives yu ñu taxawal la àjjumay démb ji ca la amal moom itam ab correspondance rek jëmale ko ci ñi nga xam ne rek ñoo bokk ci guvernement bu Sénégal mu di ab correspondance boo xam ne rek def na ko ginnaaw bi njiitu mi amal amal daal di koy jëmale ci agent yu fonctionnaire public yi ci biir lettre boobee nag moom Ousmane Sonko ma ngay sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoo di jëwri ñu ñu daal di tënku ci wàllu éthique ak responsabilité bu ko defee ñu mën a ñoŋal nekkinu askan wi nag Sud Quotidien dellu soit tey ji nag ci état de finance publiques bu Sénégal yéenekaay bi ne état bi jamono ji nag mi ngi ci sous tension Meissa Babou di ab économiste nag ma ngay dellu soit ci bor bi nga xam ne rek bu ñu ko nattee toll na ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci téeméer boo jël ci wàllu PIB Vox Populi nag France bi nga xam ne rek jamono jii ñu ngi ci ay jafe-jafe jëm ci wàllu koom ak suqaliku yéenekaay bi ne fi mu toll nii nag pouvoir bi ña ngay installé Pastef nag li ñu bëgg rek jamono ji nag mooy ànd ak askan wi nag liggéey ba li nga xam ne rek moo ne ci suñu kanam ñu mën koo songu daan te loolee dañ koy jaarale nag ci seen projet bii nga xam ne moom la ñu taxawal nag ba mën a génnee askan wi ci guuta gi ñu nekk bés bi la jour dellu soit nag ci jafe-jafe yi nga xam ne rek boo daal daañu ko am ci wàllu insécurité alimentaire yéenekaay bi nag ne la xewoon ci atum 2012 boo moytuwulee daal dinañ ko fi gisaat rapport boo xam ne nag FAO fësal na ko ak waa UNICEF di xam ne nag ne juróomi téeméeri junni ci ay njaboot fii ci Sénégal mbir yi laal na leen ginnaaw alternance 2012 nag lu toll ci juróom-ñetti téeméeri junni ci ay sénégalais nag ñoom ñoo amoon jafe-jafey dund ba ci jamono joojee nag Macky Sall daa mujjoon na tàllal loxoom nag waa biti réew di leen sàkk ñu daal di koy dimbali enquête yëglekaay dellu siwaat tey ji nag ci li nga xam ne moom la askanu Sénégal di xaar nag jëm ci gouvernement bu yees bu Sénégal bokk na ci wàllu justice wàllu gouvernance ñàkk xëyum ndaw ñi nag ressources naturelles wàllu migration bi nag loolee yëglekaay bi nag jàpp na ne moo gën a soxal ñii di askanu Sénégal ca Mbour jàpp Saint-Louis xam ne rek ñoo fa nekk di yëngu ci wàllu tourisme nag ñoom ña ngay ñaawlu nag jafe-jafe yi nga xam ne rek ñu ngi koy nemmeeku ci seen boobee secteur askan wa yeewoo ca Matam nag lu jëm ci nga xam ne rek moo soxal Dandema yoo lu jëm ci wàllu exploitation bu phosphate bi nag ñàkkum personnel nag ci wàllu jàng meek wér-gu-yaram gi loolee bokk na ci li nga xam ne rek mooy seeni jàmbat jamono ji yéenekaay bi yemu fa ndax àdduna ba ca diwaan bu Casamance ak crise bi nga xam ne rek moom la askan wi di dundee jamono ji jëm ci wàllu désenclavement nag activités yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal te mënuñu caa gis seen bopp loolee lépp nag moo waral askan wi di xaar gouvernement bi mu daal di cay wut ay saafara jeexale yëglekaay yi ak jàppante bu metti bi amoon démb nag ca prison bu Mbour ginnaw bi nga xam ne rek garde yi duggoon nañ ci chambre yi nag doon amal ay fuy ba teg loxo nag lu war ëpp ay fanweer ci ay portable nag ginnaaw gi nag ci la prisonniers yi di mer bay futt nag génnee matelas yi ci